ñu ñuy topp ci waxtaanu fajar ci waxtu bi ngeen di si ànd ak seen mbokk Ibrahima Drame ci wàllum xarale gi di suñu mbokk Jaawo Jallo gannaaw buñ sante yàlla buur bi tabaraka wa taala julli si yonent bi salaatu wassalaam ñaan yàlla suñu boroom subhaanahu wa taala xëy bu mag bañu dégmal si nii muy ñëw di tabaski bi yàlla buy ñëw yal nañu fi fekk buy dem yal nañu fi bàyyi waaye lépp lañ fa jaamu yàlla tamit yal ko buur yàlla nangu amin ya rabbal alamin mbokk yi yal na yàlla nekk ci yenn ak seeni njaboot lépp lañu ñaan yal ko buur yàlla nangu amin ya rabbal alamin yéen ngi fàttali woon suñu waxtaan bu mujj bañ doon waxtaan ak yen noo ngi yemoon aaya ba nekk ca suuratu saafaat keroog ba yenoon yonent yàlla ibrahim alayhi salaam géntoon la ko yàlla géntaloo ci biir gént gi mu gis ne moo ngi reyndi doomam ba mu ñëwee diisoog doomam la ko doom bi tontu dañ ne woon ba xam ñun suñu doom yi bu ñu àndiwul xar ci kër gi noonu la ñuy tontoo la doomu yonent yàlla ibrahim tontu ibrahim ba xam ñun suñu doom yi noonu la ñuy tontoo bu dee amuñu xar bu dee waaw alhamdulillah bu dee déedéet kon na yonent yàlla ibrahim yaree doomam bem ko ne maa gént si nelaw ma di la reyndi loo ci xalaat bu dee doom bi lam tontu noonula suñu doom yi di tontu dañ ne kon nañ leen mbokk wax alhamdulillahi rabbil alamin cant ñal na yàlla am nañ njaboot ñu baax waaye bu fekkee ne déedéet la yonenti yàlla ismail tontu baayam di yonenti yàlla ibrahim bu fekkente ne suñu doom yi loolu la tontu bu ñuy tontu méngoowul ak li ismail la tontu baayam kon bu yeboo ñu géem a góorgóorlu ci yaru njaboot waaw yow paa bi xar bi la andiwul nga bugg tukkil addina waaw bu fekkente ne nag paa bi yow la war def xar bi nag su boobaa looy def mbaa doo ko porte plainte mbaa doo ko booleek juge bi mbaa doo ko booleeg <laughs> gaa yi gaa yi nekk ci côté sécurité bi mbaa doo ko booleek gendarme yi wala police yi kaay leen sama pàpp daal waaw mu ngi noonu nee na man lay rey waaw ko defee nga def ko ala in journal yi bind ko ñu ne Dramé de nee na moom voilà daa bëgg jëflanteeg doomam nii ñun su jamono jooju la ñu toll mais xoolal jamono ñoom seen jamono góor gi gënt ci nelaw muy rey doomam di ko reyndi tëral ko jël paaka jaarale ko ci put bi mu laaj ko avim laaj ko xalaatam mais xale bi amul dara lu mu wax papam lu dul yow sama baay if al ma defal lañ la sant waaye nu xale bi xamee ne jëf bi ma baay bi bëgg a jëf nii jëf ba sama baay bëgg a jëf nii nak xale bi xamee ne dañ ko kaa sant loolu moo jar a ñu ne question bi réponse bi mooy parce que xale bi dafa xam ne baay ju baax la yor baay ju noble la yor baay ju excellent la yor foo ko takk ci melokaan ci tabe ci yiw ci mbaax weesu na ko moo ne xale bi lu tax nga nangu lii sa pap parce que sama papa il est waaw bu dee noonu lañ koy waxee taalu bi nasaraan yi nag na ngeen ma baal bu ma yàqee seen baat waaw góor gi sa doom bi dafa am lu mu la réeral wala dafa am lu mu la yàqal wala da kaa jéppi moo tax nga nar kaa nga nar kaa tëral rendi ko déedéet defuma ci ñaari benn waa lu ko waral dañ ma sant ndax maa jël nisër boobu maa dogu ne dara mënul jaar sama digganteeg sama borom di yàlla suñu borom tabaaraka wa moo lu tax ndax sama borom di yàlla moom laa xam ne moo mun moo fi andi lépp mooy kenn koo xamante ne cappaacolle ba nga xamante ne amul dara dara dara lu rax ci jëmmam subhaanahu wa taala subhaanallahi amma yushrikuun wa subhaanallahi amma yasifuun cet ak cellaange ñeel na borom bi nga xamante ne dañ na set ci lépp lañ koy bokkaale set ak ñeel na borom bi nga xamante ne dañ na wej ci lépp luñ koy nuroole jalla wa ala kii mooy cappaacoole bi nga xamante ne moo fi nekk laata li fi nekk di ne moo fi desandi di nekk gannaaw la fi nekk jóge ko ba dara desul jalla wa ala xayyul qayyum xayyul ladi laa yamuut subhaanallahi mashrikun kii mooy borom bi nga xamante ne moom la yonent yàlla ibrahim gëm wuulu ko doyloo ko topp ay ndigalam bay ay tereem ba tax na nattu bi mu nattu yonentu yàlla ibrahim épreuve yam koy defloo bu bu yonentu yàlla ibrahim defee kémtalay kattanam ba mu lottu leneen li ci des moom muy intervenir lu mel ni ganaaw buñ ko sànnee ci safara si lu mel ni bu ko waa dikkam yi comploté war koo lor yàlla ñëw intervenir mu mucc lu mel nii ba ñu taalee safara ba mu ne boy ñu nar ko fa sànni yàlla communiqué ak safara si mu ne ko dangar ba nekk ci yow te ngay lakke dangar boobu laa bëgg mu deñ te nga jël dangar bi nga xamante ne sedd ak mucc sedd ak mucc lay doon ci yonent Yàlla Ibrahim moo tax ñu ne leen keroog bu ngeen demee xool anbiya di ngeen gis ne xeetu ibrahim alayhi salaam ah, ñam doon woote ila tawxidullah wa tarkul ibadatul asnaam ñam woote ngir ñu wéetal yàlla bàyyi di jaamu xirim xeytam yooyu gannaaw bu ñu buggee rool yoon ci al ibrahim ba sànni ci biir kambum safara xëj digganteem ak xeytam yàlla daal di mu ne yaa naaru kuuni bardan wa salaaman ala ibrahim yow safara nekkal sedd bu ànd mucc mu fassiru na ñu ne bu yàlla waxoon safara si nekkal sedd kese boolewu ci mucc ni konte woon seddaay bi dina wowloo deretu yén ci ibrahim waaye yàlla mi bind safara safara nekk disposition boromam di yàlla safara si di jaam ibrahim bi di jaam ba ko gaayam mi sànne ci biir safara si yàlla ne ko nekkal ma lu sedd seddaay bu ànd ak mucc mucc bi nga xamante ne du ko lor seddaay bi nga xam du bi nga xamante ne du ko gaañ seddaay ba koy musal ci seddaay ju tar laa bëgg nga doon ci sama jaam moo tax buñ ko sànnee si safara si safara si sedd seddaay bu ànd ak mucc seddaay bu ànd ak salaam waaw bardan wa salaaman waaw seddal seddaay bu ànd ak jàmm bu ko lor de seddaay bu ëpp tamit léeg-léeg nga jox nit ndox waaw mu sedd lool wuu mu ne ko mënuma kaa naan ndax seddaay ba ndox bi tollu seddaay boobu day lor ko ko nar a consommer waaw ah, kon seddaay day lore léegi-léegi nga dugg fenn lañu talal la clim clim bi ne boy waaw ah, ba xam amuleen fi mbàjj wala amuleen fi ah da nga xamante ne mooy tàngal néeg bi waaw ce que amuleen fi chauffage ah wala sofo ngeen tàngalal ma ndox ma jàpp waaw ah, est que néeg bi amul chauffage parce que seddaay bi dafa jéggi dayo waaw léegi-léegi nag si day day waaye borom bi subhaanahu mu ne safara si ne nekkal ma lu sedd waaye sa seddaay bi ngay doon na ànd mucc ñal si sama jàmbi di Ibrahim moo tax keroog buñ doon taxaw ak yéen ci waxtaan wi ñu ngi taxawoon ba yàlla ne yonent yàlla Ibrahim wa naadeynaahu ñu woo yonent yàlla Ibrahim ñu ne ko an yaa ibrahim yow ibrahim qad sadaqta ruya dëggal nga gént biñ la géntuloo trichewuloo si naxoo sa bopp sa doom dawul sa soxna bañul wanaa day naaxu ñu woo ko ñu ne ko an yaa ibrahim yow sama jàmbi tudd ibrahim qad sadaqta ruya ca dégg-dégg-dégg déggal nga gént bañ la géntloo gént bi nga gis si gént gi gént ba nga gis ci sa nelaw bi dëggal nga ko de ndax waxtaan ak sa doom sa doom bi ne sama papa defal lañ la digal defal lañ la sant soxna si d'accord na waaye alquran andiwu ko waaw moo tax ñàkk andi fa soxna si d'accord yaa ngi koy jëlee ci aaya bi nga xamante ne mooy fa lamma aslama gannaaw bu Ibrahim accepté wara a exécuté lañ ko géntaloo ci nelaw bi falamma aslama ba soxna si dakkoore lañu géntaloo borom këram ci nelaw bi falamma aslama keroog bu Ismaila dakkoore lañu géntaloo baayam ci nelaw bi falamma aslama ñoom ñetti ñi bu ñu mànkoowee d'accord na seen borom kër di kilifa gi na exécuter na jëf lañ ko sant fa lamma aslama baay yaay doom ba ñu accepté ba ñu d'accordé ñoom ñëpp ñu takk seen fit ñu ne kilifa gi yaa fi doon di kilifa kon defal lañ la sant ah wa tallahu lil mu daldi jiital xale bi yaay ji yuuxuwul yaay ji waxul ko ne su booxuma la fay yóbbu sama tànk bi mennum doom bañ yor yaay ji muuluwul jëkkër ji yaay ji waxul doom bi ne dawal demal sa këru nijaay yaay ji woowul presse ne leen kaay wallu sama jëkkër raba ko dugg daa bëgg a rendi sama doom yoo kaay leen yaay ji waxul nii doom ji waxul police yi kaay arrêté sama pap doom bi waxul paa bi maa ngi dem bind convocation parce que toi normal doom bi waxul loolu doom bi la mu wax mooy yaa abati if'al ma tu'mar sa ni inchaa allahu min assabirin sama baay defal lañ sant defal lañ la digal ndéem soob na suñu borom dig ma fekk ci woy muñkat ñi rendi bi may rendi ni mu métti métti métti dig ma fekk ci woy muñkat ñi moo tax aaya bi ne fa lamma aslama ñoom ñett ñooñu bu ñu d'accord si assemblée générale bañ doon def seen kër seen néeg pàpp yaay doom fa lamma aslama ñoom ñëpp mboolem seen ñu mànkoo tënk seen baat ci benn kàddu moy lan na góor gi jëf lañ ko digal mooy lañ ko doon won ci gént bi aaya bi ne wa tallahu lil jabin mu daldi jaaxaanloo xale bi tiimale ko ci kaw jël paaka bi di jëfandikoo comme niñ ko sant reyn bam doon gis ci gi noolu la doon géem a def waaye paaka bi bañ ne du dagg dara yàlla buur bi tabaaraka wa taala mu xool xoolu soxna si mu gis si ne soxna si dafa accepté la sant jëkkëram mu xool xoolu Ibrahim yàlla gis ci biir xoolu Ibrahim Ibrahim dafa accepté la ma ko sant loolu la nekk di géem a def nii waaye mu xool ci biiru xolu Ismaïl di doom ji mu gis fa ne ak accepté na la borom bi sant baayam te baayam loolu la nekk di géem a jëf nii ñaari xol lañu tudd seeni làmmiñ loolu lañuy jëf nii waaye ñetteelu xol ba nekk kër ga di xolu soxna si buur bi tabaaraka wa taala gis fa ni benn acceptation ya nekk ci ñaari xolu borom kiram ak doomam loolu moo nekk ci xolu soxna si buur bi daldi di intervenir na mu intervenir daa njëkk a woote wanaa day naaxu ñu woo ko an yaa ibrahim na yow ibrahim xat saddaqata ruya dëggal nga gént buñ la doon won ci nelaw jënt googu nga gént ci si nelaw yaa ngi nii di ko déggal waaw dëggël nga ko de waaw trichewuloo dugaluloo fa benn tappale dugaluloo fa lenn loo xamante ne danga naan xale bi dafa feebarak xale bi dafa daw gisuma ko xale bi yaay ji nee na daa dem ci këru nijaayam dañ ma convoqué police euh, voilà sécurité force de l'ordre yi ñëw nañ arrêté nañ ma waxuloo ci lenn waaw yow bi nga d'accordé ak sa doom daal dem nga nar ngaa exécuter lañ la doon lañ la wonoon la nga nara def dem nga ba nekk ci yàlla ne wa naadaynaahu ñu woo ko an yaa ibrahim ne yow ibrahim xad si dëgg dëgg dëgg xad si dëgg saddaqata ruya dëggal nga gënt bañ doon won ci nelaw inna yàlla ne naka ñun suñu mbir de nii la rek kadalika noonu najisi ca la fayee al muhsinin way rafetal ñi xar bi ngay jënd yow boroom kër gi bu ko rafetalee lal ihsaan bu fekkente ni topp yàlla rekk a ko lal xar bi nu mu toll ak nu mu day na méngoog na atte islaam sariatul islaam joxoñ na xar bi toll na ko sharia bëggee baax na waaw shariatul islaam na mu ne tabaski gàtt bu ñuy defar na mel nii bu melee noonu rekk baax na waaw yàlla nee na inna haada la huwa albalaa'u mubiin lii ibrahima nekkee nii ak doomam ak soxnaam borom bi ne lii mooy nattu bu bir nattu bu mag boo xamante ne kuñ ko defloo nga saalit borom bi ne wa fadaynaahu ñu jotee ko bi zebehin kuy bi nga xamante ni azim bu mag bu tal waaw bu tal fees suur waaw wa fadaynaahu ñu jotee bi zebehin ci ki ñu war a reyndi kuy bu mag yàlla neena na ca la ñu jotee ca la ñu rawale bakkenu ismail ñu roof bakkenu kuy goo xamante ne kuy bu mag la waaw kuy goo xamante ne dafa suur waaw ibrahim bu mu gisee deret bi daal way mu daldi sant yàlla waaye nag yàlla xamal ko ne la nga dëggal jënt googu nga gént nga dëggal ko ak sa soxna ak sa doom ah man yàlla intervenir naa ngir nga gis deret fa Ismaayila tëddoon fa sa doom tëddoon lañu namm nga gis fa deret deret boobu noonu nga gis nii nag maa ko jotee bakkenu Ismaayil mu doon kuy goo xamante ne kuy gu ngànd la istuwaaru kuy gi nag mënut xej waxtaan bi waaye nag ñu ne xaabil moo ko génne woon sarax yàlla nangu ko mu denc ko ci toolu arjana yi keroog la yàlla ne jibriil alayhi salaam na nga dem jote bakkenu sama jaam bi di ismail ngir sama xarit bi di ibrahim xalil moo bëgg a déggal gént bañ ko géntuloo ci nelaw bi waaye dinañu rawale bakkenu suñu jaam bi di ismail ñu jotee ko bakkenu kuy wi nga xamante ne moo nekk xar bi lii mooy istuwaaru xar bi ci wàllum tëbaski incha allah bu ñu ko yàlla mayee bu ñu delsee du ñàkk ñu andil leen xar bi naka la ko is islaam chariatul islaam tërale nu mu mel nu mu war a mel bu xar amut yeneen yu ci topp yëpp loolu du xej ci émission bi incha allah suñu beneen jotaay dinañ leen ko andil bi iznillah noonu la yàlla ne inna haada nii mel lii nga gis nii yow yonent bi ak sa xeet yow miy waaja tubuski te nga bokk ci xeetu sayyidina muhammad yàlla ne inna haada histoire yañ la rencontre ci diggante ismail ak papaam di ibrahim ak yaayam yàlla ne histoire woowu reyndi bi ak la aju yëpp la huwal balaaun mubin lii mooy nattu bu mag amul benn nattu bu ëpp nattu bi nattu yàlla nattu na ibrahim fa nattu yem lii nattu bu ngand bi nag waaw borom bi ne wa fadaynaahu ci lañ ko joote ci lañu remplacer bi zibixin aji reyndi bi azim kuy bu mag ismaila la ñu war a rey baatu ismaila pàq bi nar jaar baatu ismail la deret bi nara a kule yàlla ne ma joote ko ma remplacer ko kuy gu nga xamante ne moo tax ismail dund waaye kuy boobu moo tax cofeelu yonentu yàlla ibrahim ci yàlla virgule wàññiwu ci waaye yow mi joote kuy gi ngir sa njaboot est-ce booy rendi kuy gi dinga nga reyaale ki ñaan ba nekk sa xol tontu bi bàyyee nañ la ko yow mi rey xar bi est-ce que di nga reyandi waale coxor ak siis ak rëy ba nekk sa biir xol tontu bi bàyyee nañ leen ko yow mii reyndi kuy gi zéro sa digganteeg jàkka ji ngay dégg nodd est-ce reyaale nga tayal boobu noonu di la jàpp ba ngay bañ a dem jàkk ja tontu bi bàyyee nañ leen ko fexeel paaka bi daal bu jaaree ci gorsu xar bi na nga reyaale lépp loo xamante ne soxor ci sa xol na dee bu mu dundaat lépp loo xamante ne comme xar bi mënul delsi soxor bi na deewaaleeg yóbbaaleeg xar bi mu bañ a dellusiwaat ndigim xar bi du jógaat kon soxor ba nekkoon ci xool bi nanka reyaale mu dee xar bi dootul jógaat ki ñaan ba nekkoon sa nanka reyaale mu dee mu bañ a dekkiwaat comme xar bi dootul ñëwaat ci àddina dootul dundaat kon siis rëy fuuy yëg sa bopp xeeb nit ñi nanka reyaale mu dee mu bañ dundaat sa biir xol fekk yow mi rey xar bi nara jëfandikoo nawal li fekk reyaale li ñu lim nii ci xëytu jikko yu ñaaw ci sa biir xol xamal ne xar nga rey yàpp nga lekk mais tubaski waaw ndax njëlbeenu nit kiñ ko sant kooku lu mu dund ci xat-xat ci njaaxle teewul ne moo ne def na lañ ko digal mais yow nga ñëw fekk ko fi di sunna ci xeetu Seydina Muhammad yow nga ñëw fekk ko fi ci àddina di sunna ci xeetu Seydina Muhammad mais yow ah ñaata tabaski nga tabaski est-ce que nekkuloo rek di rendi xar di lekk yàpp jar naa de parce que yonent Yàlla Ibrahim bi sacrifié lépp na la rendi doomam yàlla wuutale ko ko xar mu rey ko kontaan mu ne yàlla tey la gën a sopp tey laa la gën a topp tey laa la gën a bëgg tey lay gën a tënk sama bopp ci say ndigle waaye tey lay gën a sore ci lépp li nga tere est-ce que yow àgg nga foofu question bi ba léegi mbokk yi aaya bi dafa bëri question d'interrogation est-ce que est-ce que est-ce que yi la Ibrahim jàll est-ce que yow yaa ngi waajal sa bopp ngir jàll ko moo ne moo tax bakken yooyu ñuy faat ci bés ba fukkeelu fan ci weeru tabaski fukkeelu fan le diis ci weeru tabaski bakken yu ñuy faat ci àddina kenn du ko naxaru au contraire mbégte lay doon moo ne baayu jàmbur nga faat moo ne jëkkëru jàmbur nga faat moo ne doomu jàmbur nga faat moo ne yaay jàmbur nga faat parce que am na ñoo xamante ne sax dañ ne kuy bu jigéen xar bu jigéen sax waaw sopp nañ ko si bu fekkee ne moo fi sës kon képp kuy tëbëskee xar bu jigéen faat nga yaay jàmbur waaye la islaam tànn ne moom la ñu joote Ismaayil kuy la xar bu góor pu suur moo tax mu ne wa fadaynaahu ñu remplacer Ismaayil bi zebehin kuy nga xamante ne manees nañ kaa reyndi waaye azim kuy gu suur ponkal mu doon kuy gu tal yàlla ne ci sama mbaax nag wa tarakna alayhi fil axarin ma daldi ko daganal ñi nga xamante ne ñuy ñëw ci mujjantelu jamonoy àddina te mooy rasulul mustapha xaatimal anbiyaa'i wa imaamul mursalin yàlla ne ma denc ko ba keroog ma yónni sama mujjantelu yonent bi ma daal di ko dekkil jëfu maamam jooju di ismail ak baayam di ibrahim moo tax mu ne wa tarakna alayhi ma bàyyinde ko fii ma ma bàyyandi jooju doxalin boobu noonu fil aaxirin ngir ñu mujj ñiy ñëw yàlla ne waaye ibrahim ma ko njëkk tàmbale ak doomam di ismail salaamun mucc ñeel leen ala ibrahim ci ibrahim ak njabootam yàlla buur bi nee na kadalika nii rek nii rek laa koy defee najizil muhsinin nii la ñuy fayee way rafetal ni kon képp koo xamante ne bëgg nga yàlla fay la fay bu méngoo ak sa jëf nanga rafetal ci sa lépp ñu ngi waaj a jublu ci tubaski bi na ngeen xalaat rafetal jëmale ko ci ñi nga xamante ne seen loxo jotul seen ginnaaw am na ñoo xamante ne sañu ñoo laaj te ñu ngi góor góorlu ci diini bi di géema leeralal nit ñi diini bi imaamu jàq yi bilaalu jàkka yi ustaas yeeg ndongo daara yi ndegem événement bi suñu événement la ñun nitu diine yi ñun niti daara yi na ngeen ñu sóoraale ci lu bari ngeen bañ ñoo fàtte ndegem yéen a ngi rafetal jëmmale ko si ñun borom bi subhaanahu wa taala nee na kazalika najzil muhsinin nii lañuy ñuy fayee képp kuy rafetal jëmmale ko ci sama njaboot ñi nga xamante ne nattu na ne ñoom de seeni loxo du jot seen ginnaaw su ko defee ñu déggee aaya bi ni ñu bàyyi xel aaya bi ni mu doon waxtaan joo xamante ne yéen a koy am ak ñun di ko wittalante ñun fii ci réew mi FM 97.5 ñu ñaan yàlla buur bi tabaaraka wa taala lu jub si kàddu gi yal nañu ko buur yàlla fay lépp lu ci dëng ñu ñaan yàlla buur bi tabaaraka wa taala yal ko buur yàlla jéggal amin ya rabbal alamin jacalana allahu wa iyaakum min alladina yastamicuuna alqawla fa yattabicuuna axsana waxtaan bi jeexul dañoo yegg si fu ñu war a yëkkatee jotaay bi ndax ñu war a joxe xibaar a taxaw ñu fas yéene leen jébbal leen bërëb bi yal nañu yàlla may dégg topp baarakallahu lii walakum fi l qur'aani wa nafaani llahu wa iyaakum bima fihi min al ayaati wa dikri al hakim allahumma ya rabbi taqabala minna innaka anta samiu alim allahumma taqabal minna innaka anta samiu alim wa natuuba ilayna ya mawlana innaka anta tawaabu rahim allahumma ya rabbi aminna fi awtaanina waslih illahumma a'immatana wa wulata umurina allahumma ya rabbi ihfada biladana min alfitan maa dahara minha wa ma batan amin ya rabbal alamin aqulu ma tasma'un baraka allahu lii walakum fi alqur'ani aladim wa nafa'ani allahu wa iyaakum bima fihi min alayati wa dikri alhakim wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa barakatuhu wa barakatuhu wa barakatuhu